doo jàmbaar barki yéen a di yàlla Muhammad xool loo am lu jéggi sa tànk kii dafa amal ku dul yow sax mënoo yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal di koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci fees tu face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara fa ak Deko Cric Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu samedi octobre ci arène national à partir de 15 heures ko kenn tardé loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production combat royal koy dundee liggéey yaa ci gis sa bopp ci moom depuis bu dee liggéey bi tax ñuy wax mm-hmm. pour ngem mbër mm-hmm. moom wàññi woon naa ko depuis deux mille deux mil deux mille douze. deux ay deux mille ay yooyu daal. voilà ko wàññil mais ay jamono moom daanaa ci sonn di ci def lu nekk. mais léegi moom comme ñi nga xam ne mënoo ñàkk ba ñu jëflanteeg ñoom. ak maslaa rek parce que làmb dafa bëri lu mu laaj te li ci nekk bëriwul daal. waaw waaw. bëri na coono waaw bëri na coono. Mhm. <laughs> mbëri moom soxla. mbëri moom coow bu bëri la de Ali de. Ali ah. xaalis Ali la wax ju bëri. Boucar am nay jamono. Mhm. boobu média bi demeegul nii sax. Mhm. comme ni affaire yi demee. mbër yu bëri jaar nañ samay loxo. Mhm. da daan ngemb mbër sonn ci ba mu daanu ca suba ga doo ko dégg. xam nga yooyu neexul. te làmb comme boo ko bëggee. bu mbër ñëwee ci nga koy ñaanal. yéene bi ngay demee. dina waral sax. yenn yi sax même def. li ngay gën bëgg mooy nit ki am ndam parce que mm-hmm. yéen boobu ngay am parce que sport bi day xas nekk sa dënn ba pare mm-hmm. mais après boo demee ba ci biir da xam ne yu ci bëri jëru mais yow daanoo def business kon comme comme sëriñ yi léegi li ngi nga fay ma temps ma ñaanal la yow daanoo def noonu man nag ay jamono musuma wax mbër mbër yi may dégg xam nañ du ma tudd turu mbër ne mbër bii jaar na ci man wala nàngam maanaam musuma wax mbër ne ko fay ma nàngam ay jamono mm-hmm. musul am da ngay ñëw wax ma sa komba wala ki ma booleeg yow xam ma damay am yéene wu nga daan mhm. man dama daan mais rek dama dem ba yeetaat sama bopp ndax mhm. tey Boucar mi bu ñëwoon ci nga koy ñaanal doo sonn ci moom yenn coono yi mais mbër bu ñëwee ci yow combat bi des un mois des quinze jours des dix jours ba ca suba ga mhm. soo ñëwee bi lay kese maanaam dina tilim xeetu tilim boo xam ne lu ne dina fa nekk ak coono yi waxuma la dara waaye bu fekkee da nga ci sonn gént yi lay dikkal guddi bu fekkee da ngay ñaan nag nekk sëriñu laam li lay dikkal hmm. dafa dafa dafa doy waar hmm. moo taxoon nag bi ma dem ba ci biir ma xam ne kéetul ma xaw ko hmm. wàññi benn mbër yoo xam ne ngemb naa leen ci saison yi jàll nii maanaam takk mbër boobu laa bëgg a def dinaa la ñaanal nag nga dem bu la yàlla mayee ndam baax na waaye dinaa def li nga xam ne nii ay muslaay laak yooyu mais ay xeeti takk ak yooyu dama ko bàyyi parce que baaxul daan nga ci xaalis daan nga ci am xaalis déggoo li ma la wax moo ci saison yu mujj laa wax quoi te soo mujj yi bi ma bàyyee ñi ñi ma jege kese laay nit moo may jege nii rek ma. ñaanal la defal lay muslaay nga dem. Mhm. mais comme jël ci yenn charge yi mu ci daan jël nga xam ne damay volontaire mu wóor na ma ne dangay ngay dem ma ne la da ngay daan pakala bu lamsaar bi kii wax fii léegi. Mhm. bi ma koy mujj ngeen mu war a bëri ji ñaari mbapat. Mhm. ne ma kii sele fu mu dajee pakala da koy daan bu fekkee daa nga siiwul. ñaari aller yi mu ko daan yëpp. maa ko ngeen mu ne ko boo demee ñaari aller retour yëpp da nga koy daan yaakaar naa ñaari aller retour yooyu ci la mujjee dem tukki. te après mbër yooyu doon sax mën nga leen a bañ a déggati. bi maanaam xam man damaa jaar ci làmb. Hmm. damay xam ndax man daanaa dem ci ay mag. Hmm. ñu ngeemu ma duñ ma laaj dara nga yëkkati li nga am jox leen. Hmm. parce que bëgg-bëgg bi la da nga koy xam yow. wala nga dem ci mag mu ne la demal def nangam ak nangam ak nangam. te du la laaj dara tey. pour duñ la dóor ci làmb nga daan dama dem ci benn maam mu ne ma sama doom boo bëggee duñ la toroxal ci làmb indil ma kilo suukar nga indi kilo suukar jox ko hmm. mun na lii boo ko defee kenn du la dóor nga daan mais bu fekkee amoo garde nag hmm? bu fekkee amoo garde nag xam nga boobul garde li tax dóor booba duñu dóor nga daan dóor bu mën naa bañ a ci jaw ah mun ngaa bañ a am garde sëriñ bi la ko nit nekkatul tey mën ngaa bañ a am garde hmm. nit ki moom li dem ba tudd ko mu koy wut loola la ciy moytu am déet mhm. mën nañ la dóor dóor bi ñëw ba dal la mhm. te yow mi mu dal du def effet ci yow hmm? léegi lan moo tax ñu ne la am na gaalaay yoo xam ne boo ko yoree kan du la maanaam koy a dóor a dóor ba muy kañe kañe te doo gis deret gis hmm. deret daal boo xam ne dañ lay dóor dóor yu metti est que du mbër yooyu dañuy résistant rek non deret xam nga yow mii am na moor yi ki bu la dóoroon benn coup fii léegi. damay daanu damay daanu. waaw mu ngi noonu sëriñ bi bu ma joxoon sax kii bi mu naa mu bu ma dóoree ma daanu. ah mën ngaa bañ a daanu. gàllaat du ay caaxaan. xam nga boo déggee kii mm-hmm. am na lu mu wax kii léegi. Mm-hmm. bu dee ci cadre làmb wax na ko ne ko mbaa yaa ngi waajal sa bopp. Mm-hmm. parce que ngañ seen mbërum ba par la. léegi bu fekkee ci cadre sport kese la tege. da ngay dem bëri ji amul gàllaaj amul dara. yow di nga xam ne kii m bëreel ci qualité yi. man maa ko gën a làmb loolu tax ñu ciy wax mystique mais du. Mm-hmm. ay mystique def pour tey force dama koy def pour daan. Mm-hmm. mais da nga koy pour aar sa bopp. Mm-hmm. tey yow boo entraîné ba am doole nga dem ci làmb. bëre ji ak benn mu ëpp la mystique jàpp la. sa cër yëpp fu na wala mu oyofal la wala mu naawtal la wala mu jaxe sa léegi ana sa entraînement. ana sa doole. Modou Lo Siteu am na mystique. làmb yëpp am mystique. làmb yëpp am mystique. mais nag làmb jooju. buñ ko tegee ci mystique carrément à cent pour cent mhm. déception mën na ci man avant ñu ñëw si làmb dafa amoon làmb bu mu bëggoon réalisateur bi woon ma ko parce que làmb jooju man jusqu'à présent man keroog rek ay jinne ñoo ci muy combat bul laal ak gàkku mhm. bul laal nekk sa nit nekk sa mbër on peut dire mhm. bi xam naa ne waaj ngeen ko soñ ngeen si mais jël ba ba nga xam ne lii technique mën na nekk technique aussi mais jël boobu noo ko dundee tey bul laal kàkkaarloo combat bi. waaw xam bu laal daf maa jege. Hmm. jege gi mooy sama xarit la. Hmm. bu amee combat sax man du moo ñaanal. Hmm. su amee yàlla xam ne du moo damay jël ay nit yow ci dara. damay jël ay nit ne leen defal leen sama xaalis jox li yaa ñaanaluma ko yóbbu naa ko nag parce daanaa ko yóbbu ay làmb jamono yooyu daanaa sonn ci làmb boobu jamono yooyu. Mm-hmm. dama ko daan yóbbu su ma ko yóbboo mu dem bëri daan te lépp man maa ko doon defal mais nit léeg di nga dem ba egg foo xam ne mm-hmm. da ngay ubbeeku ci lu bëri ak say connaissance ak yooyu. Mm-hmm. ñaari combat mi mujj yi moom xam ne mu ngi may dégg wala ñi ñi ko jege ñu may dégg. dama naan ko demal ci diw rek mu ñaanal la. parce que mooy li ma la wax léegi nit di nga nekk ci benn affaire ba yàgg dem am lu la xaw téye tuuti ci côté boobu yenn yi ci waroon di def dootoo ko ñemee def mm. dootoo ko bëgg a def mm. man ay jamono mbër ma daan ngemb ñi daanoon ñëpp bàyyi nañ ba maanaam biñ daanoo lañ gëj a bëriwaat <coughs> wala biñ bëriwaatee ay defet lañ ci teg ba niñ bàyyee mm. yooyu damaa dem ba xool ma ah, loolu loolu am na gàllaajoon <laughs> Boucar gàllaaju làmb amatul tey am na gàllaaj yoo xam ne tey soo doon bëree mbër mi tey nga jox ko mbër bi mu dem ba ci estade bi fexe ba sotti ko mbër mi maanaam lépp lu indi ci esar bi day yàqu te bu bëree ba pare bu daanoo bu amul sëriñ te yombul pour sëriñ dindi ko yooyu dama ko daan def mais damaa dem ba ci biir ma xam ne lii jëru ko musuma ko defal mbëri tam am defet mais dama dem ba ci biir ma xam ne li jëru ko ma bàyyi ko. li mbër mbër jëru ko laa ko waaw jëru ko parce que boo xoolee nga wér ak nit ki ngay doon ak ni ngay xam si digganteek sa borom ak fi ngay toll dangay ngay bàyyi yu bëri mais amul mbër boo xam ne loolu mas naa koo defar ci mbaam xuux lañ koy defar mas naa koo defar. ci mbaam xuux mbaam xuux. mbaam xuux waaw lañ koy liggéey. da maanaam da koy liggéey def. mbaam xuux li liggéey ci mbaam lay jógee nga ko ci butéel def ci tuuti ndox gis nga loolu boo jugoon buñ ko defaroon pare nga jóg yow ñu sotti ko fi boo ci toogaatee da ngay dof. Hmm? waaw maanaam nit coog jóg nii rek nga sotti foofu nit ki day dof. bu kat loolu yéeme na de. boo ko sottee mbër lépp lu am ci àdduna day dañ day yàqu. day confirmer wax ji éli bi kon wax fii ajjuma passé mu ne moom am na ay mbër yoo xamante ne moom dem na sax ba jégalu leen ne moom moo moo def li tax te seen. wallaahi Boucar euh, man bëgguma sax di tudd mbër mii ne defal naa ko lii maanaam man dama daan xëy mbër di bëri ji ma xëy di takk di takk di takk ba mbër mi ngemb may takk di takk di takk ba arbitre takk lan. di fos mbër. di fas adversaire bi waaw. nga koy yeew. waaw léegi yooyu nag bu bu fekkee nag beneen bi nga bu fekkee man maa ngi doon dund làmb ba léegi comme ni ko xam nga man daana bëri. li tax ma bàyyi bëri xam naa ko. man bi may bàyyi bëre boobu maa ngi pesé cent quinze kilos. am naa doole xale la bàyyiwuma pour damaa màgget wala damaa mun bëre wala nangam mais dafa am lu ma bàyyiloo bëri mais bi ma yeddaatee ci sama bopp li ma bàyyiloo bëri moo tax ma xaw a wàññi gàllaaju làmb comprendre nga li tax nga xam ne làmb baaxul da ngay ñaanal mbër nii ba làmb ji jeex mu daanu ak mu daan da ngay continuer di gis mbër boobu ci ay gént man loolu daf ma daan dal maam damay continuer di gis mbër boobu ci ay gént ci anam yoo xam ne du ma neex waaw. combat bul laal ku ko gis xam ne macha liggéey na seet sax am na ñu naan poids bi dafa tiis ak yooyu mais macha allah ku ko xam ne liggéey na digganteem ak kàkku doon noo dundee xam naa ne coono yi ngi si daj. neexuma woon nag waaye. Mhm. xam naa ne. defet la bu war a am. mais boo xoolee ni mu amee. da ngay xam ne lii. Hmm. mbiru suñu borom kese la. parce que biñ ne suba la combat bi damaa woo sa benn xarit. Ah. kii euh, nu mu tuddati Basiru. sëñ Basiru Sarr. waaw borom jaar dama woo Basiru saar ma ne ko bas. Hmm. suba li ma gis nii daal gis naa ñu nangu. Hmm. victoire waa ji. mais yow gis naa ne. war ngaa def lu tax victoire bi dellusiwaat. te yow laa gis ne yaa ko war a def. mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko waaye li ma jaaxal daal. Mhm. nii laa ko waxee vocal sax muy sama téléphone. Mhm. ma ne ko li ma jaaxal mooy. Mhm. su ma sañoon kat ñu bàyyi noonu. parce que làmb loolu da ciy am. waaw su ma sañoon ñu bàyyi noonu. mais làmb ji maanaam xëy na lu am ba pare boo nee nit daanu na nga ne waroon naa demee nii. day niru leen ne man bëgguma di wax yooyu. mais defet la rek comme defet yëpp. mais def nañ ci li ci war a def lépp. Mm-hmm. maanaam làmb ji li ma ci def ci ab xaalis. Mm-hmm. <laughs> dama daan wax bu laal ne ko demal ci nit sàngam mu dem. Ah. pour mu ñaanal la. parce que dafa ma jege. Mm-hmm. maanaam ñi xam na ñi ñi ñu xam xam nañ ne daf ma jege. dafa am leneen lu ñuy dund lu bokkul ak làmb. maanaam am na boo xam ne bi làmb ji dese semaine. ñëw naa sama kër ma génne un million. di ko envoyé di ko envoyé di ko envoyé ba un million yu jeex. combat ma Pokola def naa ci un million huit ci ngemb ñoo xam ne maanaam ngemb samay xarit la luñ ma laaj mais comme dama comme ni ma la waxee Basiru nii dama naan nit am duñ ma laaj yow lii nga war a def ci làmb ji yow lii nga war a def ci làmb ji yow lii nga war a def yónnee naa la nangam yónnee naa la nangam mhm. defal loolu léegi nag sa mbër la man mhm. pare naa ci defuma ci dara mais nag ñi xamul dañ dul xam mais nit ki ngay dundal di nga xam dina xam. dina xam quoi dina xam li ngeen di dund. ak ni ngeen di dundee. ak fi waaw. mais mm-hmm. après am na yoo xam ne waxtaan bu biir la. Mm-hmm. soo nekkee nit ki xam nga am na mbër yoo xam ne tey boo leen ñaanaloon ñu daan rek. dañ naan kii xamul dara ñu bàyyi la. Mm-hmm. mais moo yëkki ni mii. Mm. mën naa dem ci sëriñ mu ñaanal mu daan. mu xam ne sëriñ bi moo gën a aay ci àdduna. te fekk sëriñ moom jox na sëriñ bi xaalis. sëriñ bi ngemb ko ba pare mu daan. mais dina xam ne kii dafa man ndax xam nga tax muy xam dafa man day am wax yu jiitu avant. avant nag. parce fii fii la takk na ko. ah ba ba tegal siis. mais daal ah kenn ah. ko. waaw ni mu bital ñu ko daal fii da de. dem na ba yéeg ko ba mu ji bay jeex mën naa ne. ba mu jeex. mais mooy li ma la doon wax léegi avant ñoo waxtaan. parce que soo xoolee tànku gàpp deux. waaw gis nga gis nga. léegi nag lii nii lii nii <laughs> lii mooy li ma rek comme sànq ma ne la Ibou Ndiaye yéeg na fi rëbël. waaw ba jeex ba rëbël jeex. ba jeex rëbël ni ko nii. léegi nag gis nga tànk boobu mu kal. Hmm. mooy waral kee dootul am appui. boo dawee bu mu boo mu dawee di ma xatar bi nii boo ma takkee di ma xatar bi sama tànk bi bu ma ko dawee dugal fii teg ko fii bu ma ko tegee fii tànk bi nii day génn. xam nga appui dafa am dafa amul appui. ba ñu demee booy day génn si suuru làmb ji bi ñu waree bëre. man dawaat naa jóge jàmm gën jël moto cag cag laa jël pour bëgg a gaaw a egg egg am lu ma leen di yóbbul egg fekk jukki. teg bi jeex. waaw jour boobu maa ngi dajee benn booy sax bu xorom cinq tonnes la jur. fekk am bis am combat waa amoon jàll. mu naan am na sëriñ yoo xam ne dañu ñëw stade bëgg a dugg sax policier di leen téye. heureusement man bi ma ñëwee esar dama ñëw rek jàll ak làmb jooju jour boobu ni mu amee woon sécurité mais dama ñëw ci bunt bi dugg dugg dugg dugg dugg dugg ba egg ci biir esar bi bi ma demee ba dëpp am na ko doon garde bu ngi sant daraame la sax nee na ma saa dëkk ci ñuy garde yor bat si la bokk ma ma yekkaay ma ñëw na ma yow ah, jox ma sa numéro maa a ko man la loo dee sama numéro mu ne ma bi ngay dem maa ngi lay gis mais mënuma laa woo te man fii kenn du fi jaar te jaaroo ci wane sa dara wane lu tax ñu jàll. ma ne ko looy wax nii ba li ngay wax bàyyi ma dem mu ne waaye jox ma sa numéro man xam naa ci laa dajeeg mbër boobu 5 tonnes li may wax nii bu ko déggee na xam ma ne ko yow eh kaay yow yaa ne woon sëriñ bu ñëwee stade policier yi téye ko du sëriñ léegi man ñëw naa stade ba dugg dama doon tooñ noonu rek maanaam dafa xaw a dafa xaw li ci nekk moo bëri daal. moo bëri daal waaw. làmb lu ñuy topp la. Mm-hmm. lu ñuy topp la li ñu war a topp nag moom mooy couronne roi des arènes waaw couronne bi nag ñu war ko teg moo doo teg ko en jeu. Mm-hmm. digganteem ak Siteu waaw waaye nag nag affaire bi guerre la daanaka de. waaw guerre la si biir parce que jamono ji mhm. am na ñu bëgg Modou Lo daanu si te nekk ko roi des arènes ngir ñoom ñu mën a bëri si la. Mhm. am na ñu bëgg Modou Lo daan ngir mën a nekk roi des arènes ngir ñu mën a bëri Modou parce que am na ñoo xamante ne tey mën nañu bëri Modou te mënuñu bëri si te. Mhm. te am na ñu mën a bëri si te te mënuñu bëri Modou. waaw bon ku ci nekk sa arrangement rek ngay xool. mais combat la boo xam ne combat bu neex la dilem la ba pare combat bi aussi enjeu double enjeu la. enjeu couronne royale ba pare enjeu conflit de génération bi nga xam ne am na ci mooy diggante Siteu ak Modou Lo. doo jàmbaar dama lay duma. di yàlla Muhammad dama lay xool loo am dama lay sa tànk dama lay duma kii dama lay duma mbokk yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayar du xam ngeen ni combat boobu la Jëndeer production jël daal du koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci face to face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Talla Gaynde Ouskara jàkkaarloo fa ak Deko Cric Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ne war nañoo bëri ci bés boobu kon samedi 12 octobre ci arène national à partir de 15 heures bu ko kenn loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production